ah ñu ngi ñu ngi door a ñëw salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu di la masawu euh, naam métti na waaye itam naka nga ñu ko mën a euh, décortiquer. mi ngi nii daal moom lépp ci politique la dañ koy muñ rek. Mhm. lépp ci politique la. fan nga doon dem. ñun man maa ngi nekkoon ci biir cortège bi laa nekkoon waa. Mhm. maa ngi nekkoon ci biir cortège fii laa dégg si kër bu si ginnaaw. Mhm. ci cortège bi laa nekkoon. waaw léegi sa sa relation ak Ousmane ko ba ñu teg sa vitre naka la demee. man dama naan rek Ousmane ko sama doom la ñun ñëpp dañ koo bëgg ku ko ñun ñëpp ko boolee bëgg man doom laa ko def ci man te te yaay la nekk ci man te depuis ñoo ngi ci kii politique la dañuy politique dañ ko suñ lépp dañ ko dañ ko ko yaakaar ci moom te ñu gis xale bu set la xale bu baax la xale bu yaru la Euh, ñu ànd ak moom dañuy jàpp rek pour jàpp si ndax ñun xam nga sunu sunu àddina dox nañ ko ba pare mhm. li ni li ni yàlla di may may nañ ko ba pare du politique bi mais euh, sopp ko ak bëgg ko ak ngëm ko ak gëm li muy def moo tax ñu ànd ak moom nee nga Ousmane Sonko doom nga koy xoolee démb ba léegi mi ngi tëdd fii euh, ñoo ngi fii mhm. ñoo ngi fii yal na yàlla saafara te yàlla dina ko saafara mhm. ndax xolam ak ak sellam dina ko saafara liñ ko bëgg liñ ko def Euh, feebar la rek dina dem incha allah. incha allah dina dem incha allah ñu ngi lay masawu a ñoo koy ñaanal ñoo koy ñaanal ñoo ndax ñun si ñun ñëpp du fi tax ñoo ngi koy ñaanal. incha jërëjëf yaay euh, gis ngeen oto baa ngi noonu moom nag euh, démb lañu ko daal di toj mu nekkoon ci biir euh, cortège bi gis ngeen fu mu mujje alors ñu ñëpp ñoo ko gisandoor à travers lépp daal di lépp toj la démb nag ci cortège bi la nekkoon voilà ñu toj waaw dégg nga situation bu bu doy waar bi nga xam ne moom la ñu dund ak commerçant yi nga xam ne moom moo ci suma assistance oto bi ngeen doon gis démb nag ñu toj suñu oto yaay bi la bi lañu toj mu nekk nag mbir mu doy waar dem ba fii c'est c'est un peu compliqué quand même doy na waar de ah deret ji sax ñu ngi koy gis nii si loke bi ça quand mhm. même fan la ñu jëm dem ba. c'est triste et c'est ndeysaan ah oui incha allah rabbi moom da koo jëlee moom da koo jëlee à la lettre. ndeysaan <laughs> moom pour moom garaawul quoi. <laughs> naturellement c'est nee na la kanam Sonko doomam la. Mm-hmm. parce que la société dafa dépassé mbirum politique. Mm-hmm. il faut ñu xam mm-hmm. donc euh, ñu xam ne. Sénégal du violence mooy mooy mooy tax ñu defar ko nga yaay bi li mu wax ni tay xam nga tey yàqal nga ko dèjà ci yàqal bi sax da nga koy yàqal ba pare avant nga violé moom droit intégrité physique parce que boo dóoree otoom ko yaa ngi violé li ñu woowe l' intégrité physique yaa ngi violé yaa ngi violé également son droit bi nga xam mooy droit à la protection parce que dèjà boo tëj vite ak matraque boobu ngay dóor ki nekk ci biir mu xam lu koy dal lu koy jural donc loolu dafay doon lu graaw conséquence bi mooy benn yàq nga alalam da ngay tere xale yi ñu def ko yow en tant kilifa am na kenn si yéen ku ko def mooy yàq nga bien d'autrui xale yi ñoom ñu ngi yàq bien de l'État et bien privé léegi xale boobu yàq ak kilifa boobu yàq kenn moo booy nu comparé ñoom ñëpp ay yàqkat loon te booy booy booy jox toor gën a nekk moo ngay jox toor parce que moo au moins am na aussi de responsabilité war na am esprit de dépassement d'accord mais gis nañu itam euh, yenn ci yenn oto yi buñ la arrêté dañuy dañuy dóor sa vitre rek mu mu mu toj alors loolu itam ba jàngat dañ ci mën a def. mais c'est grave xam nga nee moom gendarme daf na daf ko ne euh, yéen yéen a yéen ay protégé ko Ousmane Sonko moo tax euh, ñu toj seen seen seen vitre oto. mais est-ce que ça c'est c'est c'est quand même une excuse parce que booy xool bu dee fekkee nga démb ki nga xamante ne tey même moo nekkoon la le véhicule de la presse. boobu ñu fa nekkoon journal yi dañ doon daw parce que dañ doon rawal seen bakkan dama daw ñu toj seen vitre oto boobu léegi oto boobu Ousmane Sonko nekk ci biir amul kenn koo xamante ni ku dégg Ousmane Sonko du fa nekk lu dul la presse ak quelques éléments sécurité léegi yow léegi nooy expliquer oto boobu nga xam ne dañ ko toj sachant oto Ousmane Sonko bi mu ngi ci kanam ba gendarme bi ñoo ko encerclé ba ñoom ñu dugal ko oto bip ñu bañ oto yooyu toppaat ko léegi oto bu bougé ñu toj ko léegi loolu loolu la ko expliqué. même c'est triste. c'est triste que le président Macky Sall moom moo xam. la stabilité de ce pays. moom moo koy permettre mun gouverner mu mun yeggal. dina bëgg a bokkaat wala du bokkaat kooku beneen débat la mais mënul le pays comme ni ko Abdou le Sénégal est un pays boo xamante ni il sera difficile. nga gouverner ko ci jamono joo xamante ni dañuy xëccoo di ŋaayoo moo taxoon kii di Abdou Diouf dafa comprendre loon jamono Senghor jamono plutôt Abdoulaye Wade bu opposition bi nekkee une opposition radicale dafa woo Abdoulaye Wade ñu toog sur la table ñu trouver ko solution donc xëccoo bi amul sens nous sommes un seul peuple booy ne di xëccoo kii di xëcci fële coobee bëri rek mais finalement fu ñu mujjee rek mooy waa léegi kaay la ñuy waxtaan léegi lay bàyyi la ñu seet léegi nag balaa ñuy gën a sori balaa muy gën a tàng est ce que ñu ko waxtaan mooy que ne yow Ousmane Sonko c'est une réalité mënoo ko weddi Ousmane Sonko c'est une réalité politique boo ko weddee dëgg la boo ko bañee dëgg la. merci Demba c'est ça merci. tey le vendredi euh, nit ñi dañuy waajal itam li nga xam ne moom mooy euh, juma alors dama bëggoon a doxantu sax ba kër Habib si xool moom itam euh, naka la dundee li nga xam ne moom mooy situation bi vu que moom mooy président bi léegi moom moo remplacé. Euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Khalifa euh, Ababacar Sall dégg nañ ay kàddu démb li nga xam ne yëkkati na ko par rapport ak li nga xam ne moom moo xew ci réew mi ak conférence de presse bi nga xam ne itam bëggoon nañu ko def ñu daal leen koy tere mu nekk nag mbir mu doy waar mbir moo xam ne ñoom ñaawlu nañu ko waaye xamuñ exactement lan lañu war a def fàttaliwaat yi ñi nga xam ne yéen ñuy suivre à travers ci suñu Euh, site d'information sans limite TV ba tey ñu ngi fi nga xam ne euh, moom mooy ci euh, suma assistance ginnaaw nag ba ñu dégloo ki nga xam ne moom mooy El yaay mooy mu yëkkati ay kaddu doon wax par rapport ak ci état wu santé wu président Ousmane Sonko moom nag li mu xam ne moom mooy pour le l'instant kenn mënu koo gis ndax il est un peu fatigué sonn na lool ba tax na mënul sax recevoir ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di ko seet ni mu ñëwaatee noonu la génnaatee dem. Euh, li ñu ci sedd nag moom mooy nit ñaa ngi ñëw ndànk par ndànk rek di ñëw di ko xool euh, ndax euh, tout va bien gisuñu fi nag présence su force de l'ordre yi waaw xamuñu ban stratégie ñoom itam la ñu daal di teg ndax gisuñu fi benn benn benn force de mu daal di ñëw fi nga xam ne moom mooy ci buntu suma assistance par rapport ak ba li mu meloon ak tey fàttaliwaat mbokk yi ba tey ñu ngi fi nga xam ne mooy fi suma assistance ngir rek indi leen bépp xibaar ñeel ki nga xam ne moom mooy président Ousmane euh, Sonko alors Sonia ñu ngi lay nuyu bu baax euh, di rafet rafetlu itam ànd bi ngay ànd ak ñun depuis ci suba léegi ñu ngi lay masawu itam euh, gis nañu li nga xam ne daaj nga ko depuis démb ak léegi alors. ok honorable ñu ngi tax ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di rafetlu itam ànd bi ngay ànd ak ñun ba tey ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ci euh, suma assistant rek ngir euh, indil leen euh, li nga xam ne moom mooy information par rapport ak li nga xam ne moom moo xew ci dëkk bi ñu ngi ñu ngi ñëpp di di di rafetlu ànd bi ak yéen tey la aljuma ni mu demee woon comme yeneen aljuma yi noonu la demaate tey ñu xool rek xan la wanante di mujj ki gëtam Euh, xool ndax prix bi dina jóg ci jàmm ak salaam bu pour delluwaat ci njabootam loolu nag moom la ñëpp di ñaan pour l'instant bi loolu la ñëpp di ñaan dañuy dépassé rek laajaat askan bi naka la ñu gisee li nga xam ne moom mooy situation bi waa mais <laughs> jaayëf voilà mais mais Bachir ñu dem ma jël ma jël grand bi mais grand s'il te plaît client s'il te plaît non dañuy waxtaan rek mën na la bañ a filmer sax mais dañuy waxtaan d'accord dañuy waxtaan alors naka nga gisee euh, situation bi c'est vraiment déplorable et et dire que euh, mën nga ko bañ a filmer da ngay filmer ko au Sénégal euh, bon euh, xam nañ léegi ñëpp xam nañ ko naa fee xëy fi gën a bëri wax fenn mhm. tey président Ousmane Sonko mu ngi ko def li mu ko def démb. Mhm. Euh, au rond point mel mooy nit teg si seen bët après ñenn ñi naan moom moo bëri fitna parce que lii nii yaakaar ma ne Macky Sall suñ yaakaar naa suñ ko ko tegoon 2011 bu nekk mhm. dañoo nekkoon ci mbedd bi mhm. pour Macky Sall. pas pour moom rek mais pour suñu avenir avenir boobu noonu mu salfaañe tey trahir ko moo tax tey ñu gis Ousmane Sonko ñu jox ñu un projet président Ousmane Sonko ñu jox ñu un projet. ñu projet bi intéressé bi ñu nekk ci ba li xew ci mais lu ko dara bu ko dara dalee fii ce sera la responsabilité uniquement de Macky Sall te loolu yaakaar naa nit ñi dinañ ko faj ci mbedd mhm. ça ne va pas se d'accord ñu ñëw ci brutalité bi acharnement bi bu en tant que patriote naka ngeen koy dundee bon metti na parce que muy ci sa liggéey euh, dans la vie de tous les jours mhm. da koy dund à chaque instant danga koy sentir à chaque instant mais alhamdulilah parce que boo sentir brutalité bi ñu ciy def da ngay xam ne yooyu yaa nekk ci dëgg parce que euh, bi ñu jugee ci ñu euh, tuddati ci ACAPES bi ñuy ñuy dellu si fii nii ñaata leader ñoo nekk ACAPES tous les leaders de Yewwi yeetee kan lañ gazé kan lañ dem bloqué këram pour ñu bañ ñu génn da lay ne moom moo nekk ci dëgg et saa on en est fier bu dee brutalité bii nii moo ñu naka yóbbu jusqu'au pouvoir en 2024 on sera là on va se battre parce que ragaluñu en fait euh, mooy li may wax suñu waa kër rek euh, gis nga ay jeunes yoo xamante ni dañuy braver jël gaal gaal loo xamante ni matt lañ ko yàttee di dugg ci ay gaal di leen ba Europe kooku mënul ragal policier mënul ragal gendarme mm-hmm. te état bi dafa defe naa taxaw seetlu boobu noonu la war a def yenn saa nag da ngay nekk ci xeex gars yi naan ay noo ñi amuñu liggéey dañoo am jot wala policier yi dañ leen di utiliser ñëpp dañoo am liggéey dañuy liggéey ba wàcc nekk ci suñuy xeex parce que suñu avenir la ak suñuy doom jàpp naa ne sama papa suñuy papa tey bu ñu xeexoon pour euh, Mamadou Dia ñu bañ ko def